aliya kan moo fi gën a bëgg yàlla وابنيه الستين آلام الهدى وبصحبه والتابعين لهم فوق ساداتنا أهل المكارم والمداين إيه كان مو في جنب الدين فرق سقام عبدي واكشف كربا أنا نبدي يا خير من فرج هموم المسلمين الكريم وكربهم يا خير من مد العصاة له اليدا فالشمس والقمر المنير وغيرها برم جيدا جيدا تأتي لعين مرقب آمن نظرة فكما اقتدى رعاية ونزاع لكن ذاتك لا ترى إلا كما تندك عرب جلالك الأعلى ما الناس ما الأكوان ما الولق الذي في الجو ما الأفلاك ما الأرقام إلا غبار طار من حضر السماء ومن السماء من الأمور عزام وسليا يا إلهي وجزيا

see no one رسول الله يا جرت يا يرى مقل خناب كل سيدنا محمد كقرب الجبل بين يوم ما ويا رسول الله رسول الله محب Rasulullah Amen. I'll take a look. I got some things in front of my game. Serigne Babacar وطب لدوره وشفاء Cheikh Tidiane bi lay defa guddi waaye bu guddi woon woon dinaa leen wooye la ilaha illa allah sayyidina rasulullah Cheikh diwul woon ma wayal la Yo, I'm gonna do it all. dina leen wayal ki tax ma am identification te mooy Seydil Hadji Malick man de bëgg naa la man de bëgg naa la yow yow maa bilay guddi na waaye su guddiwul woon dinaa leen wayal ki nga xam jamono yi ma tollu tem ku ma gis ni ma ni saam wayal ma ko xam ngeen kan la bismillahi may bëgg way waa ji jar di way sama yaay fa bintu nee na ma way na mi dafa guddi Mbacke yaay bu guddiwul woon dinaa la wayal ndax yenn saa yi damay dem sol sama yére dem ba ca tànt ma ñu jox ma rajo bi ni ma saam wayal xam nga kan laay way Seydina Muhammad في سيدنا محمد waa fi yàlla ñëpp am jàmm léegi nag sant leen ma ngeen déglu ma ma wax li ma bëggoon wax te waxuma ko wax maa jox yàlla dogal man Dakar daanaka fi laa dëkk waaye xawma fi lu bari waaye suñu yaay ngay ñaan yàlla daf ñu boole kóllëre jiitaal xaw ma ko sax ñu ngi door a bokk jataay tey dañoo dajee rek daf benn bis dama jékki-jékki sama téléphone sonné ma wuyu doomu wàññi éco bi ma wuyu am ku ni ma dama laa sopp te xaw ma la ma ni ko maa la raw yow noo tudd bom bi mu naan dama laa sopp sax sama téléphone loxo bi daa rëcc def may libre te man ci kanam soxna si ma ni ko ma ko yow maa raw soxna si ni ma kii kan la ma ko moom a jaaxal mu ni ma man damay déglu say way rek sopp la ngir yonent bi ko salaay salaam waaye nag koo bëgg bëgg na la mu ni ma bala maa am jàmm ñu may maye soxna si xelam doo ko dal <laughs> ñu bala maa am jàmm rek may def sama xew nga ñëw tàggal ma yeneen bi ma ne ko ah yàlla na ko yàlla motte boobu ba tey ñu jotante ci téléphone yàlla di ñu nattu heure bu ñu nee dañuy daje mu am ngànt wala ma am ngànt ziar général bii passé ñëw na ba sama kër ànd ak yaa ndey ak ay bàjjanam yu bare ñëw fekk ma suñu xabib woolu ma ma dem wuy jikko ba yàlla dogal bis bi bi ma ko yaandee ñan di wax mag ma fekk Argentine ndax yaakaar naa yéen ñi suivre les yi gis ngeen dem boobu sëñ Habib demoon Brésil ak Argentine ñi demoon ànd ci yaa ndey ñan ni ma bu ma sañoon daal ndax premier mais bu nekk dañuy def lu mel nii di ci jàppale ay ñëw juddoo ma ko ah loolu de rafet na mu ni ma leen nag dañoo sàkk woon ci yow dem ñu def ko conférence ma ne ko incha allahu dinaa ñëw te man bëgg naa soo nee dinaa ñëw rek dinaa ñëw dama bëggoon teel a ñëw Dakar xam nga ñun ci kilifteef rek la ñuy nekk dama xëy jaar kër sëñ Mansour doon ziar sëñ Cheikh Amira ni sëñ Cheikh maa ngi fa sëñ ni ma naa ko xaar fa di ko xaar ba 5 heures nekkate kër sëñ Babacar gii nekk ci Pikine ndax sëñ Babacar. am na kër gu nekk fii Pikine seen kër googu yi tey dañuy def anniversaire sëñ Babacar di ko ñaanal ñoom it ñu feex féex bu toll ni def sama tur ci carte yi ba ba démb ci suba lañ may door a woo ni ma suñu programme bi suba la te yaa nekk ci carte yi ma ne ah am na fu ma joxe woon sama carte fa laay njëkkee nag ba ba ginnaaw timis ma ñëw ñu ngi ma nangul nañ la ko waaye loolu moo waral suñu teewaay ma ñëw nag fekk fi sama bopp ndax ñiy tagg ci bi ñëpp benn lañ <coughs> te ñun ñëpp Pape Alioune Fall mi moo ñu jiite yàlla dawal nag man dama koo xaw a yem fu ma dajeeg moom dama naan ko yow sama rakk ngir mbaaxam ndax nit ñi kenn moomu leen gis kenn dàqul woy kenn waxoon naa ko Abdou Mbaye ma ne ko fii kenn dàq fe way kenn ndax ku nekk am nga sa benn ruq boo xam ni ko mën a ñëwit ñoom yow la ñuy dem waaye wàcc ak modeste moo am solo te moo dal suñu bàpp ji moo tax fuñ ko fekk dañuy sawar dañuy ñeme dem naa sax ba bi ma agsee ci oto bi ma dégg ko muy wax dama ni jëttal yow da nga maa <laughs> ndax su ma xamoon ni Pape Alioune mi ngi fi dama koy woo rek wax sama ngànt ndax man mën na matale yépp ndax loolu lañu ñu gëm sëñ Abdoul Aziz Al Amin ndax ma mosaa wax ni ma doom soxla bu nekkee benn ñëpp bokk buñ doyloontee kenn rek mën na ko dox tabaarakallaahu te it ñun xadara bi hmm. dañoo doyloonte ñun ñëpp ma fekk fi sama yaay sama yaay sama xarit nga xam ni balaa ngaa xam nit ngeen ànd tukki Yafa Bintu ànd nañu Paris daje nañ Elbeuf daje nañ ay réew yu pare waaye boo ko fekkee ci jataay boo xam ni moo koy taxawee la gën li nit ñi gën a bëgg moom loolu la lay bàyyee su ma nee nit ñi gën a bëgg nag jamono jii ñëpp seen xel xaalis lay dem waaye li nit ñi gën a bëgg ci jamono bi ñu toll mooy daraja sëñ Mansour borom daara ji man yàlla defal na amoon naa ci moom mu naan ma doom kaay déglu may wax muy muy wax may déglu mos na ma wax ni ma doom man ko naam mu ne ma nit ñi dañuy jaawale bëgg daraja ak ñeme tàngaay man ko papa luy bëgg daraja mun ma bëgg daraja mooy nga fekk li libaas ja nekk di yëngatu ci wàllu tagg yenent bi ndax tagg yenent bi kii saraxe cër mi ngi tagg yenent bi kii déglu mi ngi tagg yenent bi kii fitasu mi ngi tagg yenent bi kii jooy mi ngi tagg ñu bi mu reetaan mi ngi tagg yenent bi bëgg daraja mooy libaas di tagg di tagg yenent bi ñëw fekk ko ci barab ni ko yaay sa barab li ma waroon wax ak li nga waroon wax nga boole ko wax ko libaas jël na darajaam ak sa daraja ñu ci noom tuum ma ne ko luy ñeme tàngoor mu ne mu ne ma ñeme tàngoor tàngaay mooy sàmbu mu fekk lu ñëpp man mu fekk juróom mu jël waaye yaa faat bintu ñu ànd mu jël darajaam suufe yëkkati ni boo ko joxee alal mag pap an ñii ñoo àndoon du ma ko fàtte 2014 xaw ma 2016 boo boo ñëwee jox ko alal daf koy xaaj ñett jël benn xaaj bi jox ko pap an jël bi ci des jox ma ni yéen yéenay samay doom teral nga jooju nag nit kenn du ko lekk kenn du ko nag bis rek lañ koy doy teral jooju bi nga koy def yàgg na yaakaaroon nga ni du ma ko wax waaye nag man ku ma defal teranga waaw dinaa ko wax. bari ki dem benn waaye dama may oto. ma ni ko geste bi nga def neex na ma trop waaye teraanga ji jaaxal ma ndax sëñ Mansour may na ma may ma ma ko waaye ni nga ko defee moo ma neex fu ma dem nag dinaa ko wax ndax teraanga jooju waaye yow tam teraanga boobu nga defoon yaakaar ni fàtte nañ ko fu ñu dem fu ñu la seetaanee sax dinañ ko wax. yàlla dogal nag sama soxna daf laa sopp te moom nag ku bëgg dama lay xaw a bëgg macha allah man damay roy ci moom ndax yi muy def bu ko defee bu gisee nga xam naa leen rek nga ma solale a métti moom kay sol rek ba ci Europe boo solee dara mu woo ma Yaxya Bintu sol na lu mel nangam mel nangam te si sàngam koloo nangam jëndal ma nga xam naa Yaxya Bintu moom dinañ gisee sax dinañ si incha allah kon nag maa ngi jéglu bu baax ñu yu lay nit di defal rek te mënoo ko ñàkk bañ ah. waaye man waaye sax naa gën a mën ka wax ñu ngi gisee sax xam ni mënuma wax wax wax ci mbooloo waaye ak wuy téléphone ak nelaw <laughs> may jéglu nag ci kàddu yu baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh